bi ma fahimni al ilma wa zidni ilman wa ilman wa adaban barki seexul xadim doole Cheikh Ibrahima Fall uh, ñu ngi lay ziar baax a baax sëñ bi waa Leeral TV ñu ngi leen di ziar baax a baax seen mboolem ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci uh, seen tele bu am solo bi uh, macha allah dañ koy topp di gis seeni kii yu am solo loolu nga wax nag di lu am am solo ginnaaw bi nga xamee ne ñu ngi ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ak ak wér waaye di nuyu itam jëwrinu daara ji ñu nekk di Baye Ndiouga Dieng eh, nga xam ne moo jiite liggéeyu ñaari guddi yi ndakaaru yi waaye itam di ziyaara ka nuyu itam di ko beral eh, sëriñ maam Thierno Mbacke Muntaxa mi nga xam ne mooy président d'honneur ñaari guddi ndakaaru eh, ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ne ci liggéey bi yëpp rek di wax ne loolu nga laaj lu am solo la kii wax ak yéen nag seen mbokk Xaadim Njaay ñu gën koo xam ci ustaasam Sëriñ Tuuba wala ñu ne Xawaydimul Xaadim euh, kon sa question boobu dafa am solo ci lu aju ci dëgg-dëggi sëriñ bi boo xoolee fi mu jaar fépp ba ni mu see fii ci Ndakaaru ndax euh, ci weer wi ñu nekk muy weeru safar muy weer wi nga xam ne ci la génne woon néegi Mbàkke Baari ya muy wax ne xarajtu yow ma sabti saamin asar li xidmatil muxtaari fii sahri safar sëñ Moussa Ka wax naan taarix ba mooy junneeg ñetti téeméeri at ak ñett lim bi lee wóor ca lay waxe sax ne su ngeen ma dégloo tey jii ma dellu yeeta euh, ndax ñiy nelaw seen xol yi dellu seeti euh, kon nag loolu day lu am solo waaye sëriñ bi ci gàttal rek ci ni nga ko waxe fi mu jaar dafa bari ndax gis nga ba mu génnee néegi Mbàkke Baari la ca xew ba mu jaar ba dajeeg Euh, armée bi wala ñi ko jël si woon te euh, Leclerc yónni woon leen ñu daj fa la ca jeewal ba gis ngeen lam fa nas ci xasida ya fa xew waaye jóge fa jaar kokki Louga dem ba Ndar 5 euh, septembre 1895 waaye bi nga xamee ni nag léegi nekk na foofa ab diir nga xam ne def na fa août septembre kon booy xool daanaka ñaari weer yi bu ëpp dit wala bu matut la cay kii du bari Euh, ca la ñu amee xalaat bu toll ni euh, sëriñ bii daal gis nañu ne pas-pasam ak pëstéefam ak ak doggoom faw ñu génne ko réew mi waaye nag génne gi balaa mën a am day am barab yu mu jaar ndax xam nga ndar ci jamono boobu moo nekkoon capital waaye nag capitalu Sénégal waaye nag euh, fii ci ndakaaru dafa am histoire te itam dafa nekk mën nga ne ab karaful la Euh, boo xoolee li ko wër bari na ndax gore gi rek ay histoire yu garaaw a ngi fi euh, loolu bokkoon na ci li tax bëgg na sànq sëriñ bi waaye bëggoon ko mettital loolu bokkoon na ci sababu zahir si waaye sababu baatin bi mooy sëriñ bi doggu gi mu amoon ak ni mu nekkale woon yàlla suñ borom ak euh, dund gi mu dund lislaam ak fi jamono toll woon ngir mën a sowewaat xeetu yoon bi alayhi salaatu wasalaam loole dañ ci ñëw ci ay firnde yoo xam ne moom moo ko ci wax bi nga xamee ne nag euh, jóge na foofu ci ndar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre waaye tolloo ki tolloo itam ak weeru gamu ñu koy wax rabiul awal bu dee ci atti hijriye yi mu ngi tolloog 1313 muy ama jay sa sin noonu ñu koy tënkee bu fekkee ci atti tubaab bi ñu koy wax 1895 mu nga fa jóge ak suba teel daal di jóge ndar daal di dugg saxaar jëm si ndakaaru ba muy jëm si ndakaaru ñoom lañu xalaatoon mooy pareel nañu ko fi barab boo xam ne bëgg na faat bakkanab sëriñ bi rek mu yem fii ci ndakaaru ndax boo koy xool dëgg-dëgg yi seen pexe bu fekkan ni suñ borom da koo jubal dëgg ndakaaru gi sëñ Tuubaa du ko génn te tukki bi mu tukki ci géej gi yi ci gën a tiis gën cee metti boo koy boo ko sa bu ma ko sañee na wax sax dañuy wax ne ndakaaru la wala boog ndakaaru la tàmbalee ndax dinañ ci ñëw ci yu gàtt incha allah. bi nga xamee ne jóge na fa suba teel fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru ci weeru septembre ca la duggaal jéeri euh, muy muy saxaar jëm si fii ci fii ci ndakaaru ba mu fi yegg si mu ngi fi yegg si saani suuf muy euh, ginnaaw takkusaan saani suuf waaye bi sëriñ bi ñëw li ci yéeme mooy dafa ëndaale koor te koor gi noonu arab yi di wax naan tatawuyan maanaam kooru coobarewu la ndax du weeru koor wax naa la ne weeru gàmmu la kon koor googu la sëñ Touba wàccaaloo fii ci Ndakaaru ci nga ci tàkkusaani suuf bi sëriñ bi ñëwee eh, bari nañu wax ne bi mu ñëwee gis nga ba mu wàccee wàcc kër Ibra Binte Gueye Mbeng ndax am na sax relation yu am digganteem ak ak lébu yi eh, mooy comme ni ngeen ko waxe ndax bi mu ñëwee moom sëriñ bi eh, wax nañu ne lébu yi fukki penc ak ñaar yi yi nga xam ne ñoo fi nekkoon dañoo daje waxtaan bi ñu waxtaanee dañoo sàkk woon ci tubaab bi ne ko dañoo bëggoon ci ci ci ci nga xam ne mooy ndaw yi dañoo bëggoon sëriñ bii ngeen jël ko jox ko jox ñu ko teg ko suñu loxo ndax ci tax ci ñun la bokk ñoom xawoon nañoo bañ bi biñ ko waxee nag foofu itam am na sax lu fa jot na xew seen diggante ndax wax nañu leen ne am na jamono boo xam ne day seen soldaar yi nga xam ne dañoo dañ doon am guerre bu amoon ñoo leen abaloon fii ñoo leen joxoon fukki néegi xadd yoo xam ne fa lañu ñu na te loolee nag ngor la woon gu dox seen diggante ca lañ leen ko joxe laaj nañ leen sax ne leen waaw ndax bu dawee ñu ne leen bu dawee ngeen jàpp na ginnaaw loolu nag ca lañu ñu jële sëriñ bi mu nekk ci loxooy Ibra Binte Géey nga xam ne kenn la woon maanaam ku ku am dayo la woon waaye ku am daraja la woon ku am maqaama la woon ci ñoom boo xoolee sax sëñ Moussa di wax naa Eh, ñu jox ko sàndarma bu tudd Ibra Binta Gueye ngir war ma ma boole ko soxnaam su tudd Ana fay mu di ko toggal yàlla na yàlla xëy ko fay waaye eh, sëñ Ibra Binta eh, wax nañ ne sëñ Touba bi nga xamee ne ñëw na fii ba nekk fi yàggul ci toogaay boobu ndax ab diir jamono boobu dog mu ngi waaj jot ndax diggante boobu wax nañ ni même ñoom lébu yi sax daje nañu ba waxtaan ba xamal ba ba ñëw ci sëriñ bi xamal ko ne ko euh, laata li jiitu lool sax Ibra Binte Gueye moom sax dafa nattu sëriñ bi nattu bi mu ko nattu mooy bi bi nga xamee ne euh, jot na ci sëriñ bi euh, bi mu ko dalalee am na yet wu mu daan yor yet woo xam ne yet woo wax nañ ni fukki ponkal bu ñu ko mas bu ñu ko yëkkatee sax duñ ko attan léegi muy xool ndax kii dëgg dëgg dëgg mat na dëgg ki ñu ko fooge wala déet wax nañ ni bi mu toog ak sëñ bi bay jóg dafa mel ni kuy fàtte fàtte lu yet wi ba mu jógee sëñ bi daal di koy yëkkati ak baaramu sànqalee ñam ne ko lii de dafa mel ni moom yaa ko fi indaale woon Ibra Binta daal di geesu gis ko daal di ko ne waaw daal koy jël daal di xam na nag moom dëgg-dëgg lañu lañu nattoon ba jàpp ne ba ba seetoon ko ba xalaat ne mu ngi ci moom lu ko raw lu raw sax mu ngi ci moom ca la ñu daje nag ñoom daal di xam ne kii ëpp na ñu di ko bàyyi moom ñu di ko yóbbu ca la ñu daal di waxtaane ne dëkk bii di euh, ndakaaru dafa xaw a dafa xaw a rëbb maanaam dafa doon dëkk boo xam ne ci jamono boobu am na waxtu sàngam boo xam ne bu jotee ci mel ni waxtu timis ak yeneen waxtu yu xaw a sensible yi su jotee seen xale yi bu ñu génnee day am lu leen di këf fëkk leen te duñu ñu xam léegi ca lañu te xam nga lébu ak séeréer dañoo xaw a yem ci wàllu cosaan ak ndëpp yooyu waaye loolu taxu doon ñu mën ci dara ginnaaw loolu nag lañ sàkkoon ci sëriñ bi mu ñaanal leen ci ci loolu ndax mu mën fee saafarawu ca la ñu daal di sëñ Tuubaa diggal leen ñu indi teg paanum ndox ñu indi ko sëriñ bi daal di tib ci suuf si ñaan ci daal di leen wax ni fépp fu ngeen xalaat ne rek maanaam euh, kaaraange ndakaaru dana fa ak na ngeen fa so na ngeen ko fa def wax nañ ne tey jii loolee bokk na ci la ko fa saafara woon ñoom it ca la ñu nag daal di dem ci seen yëf yi ndëpp ndëppaan yooyu ngir xaj na bëgg fexe ba sëriñ bi du dem ba ñu ko defee ba ñëwee sëriñ bi moo leen woowal boppam ne leen dama bëggoon loolee ngeen dindi ko ndax man duma koy toog kuy liggéey li yonent bi alayhi salaatu wasalaam laa loolee nag bi mu amee gis ngeen sax sëñ Moussa Ka di wax ne euh, boroom ndarab ndakaaru dal koy woo gis nga nga xam ne moom ci sensé ñoom dañoo dal di ñëw rek woo sëñ Touba sëñ Touba ne na foofu moom jàppoon na ne sax bi ñu koy woo donte moom du sàkku ci tubaab moom suñ borom rek yaddan li muxnin karimin naafiin samadin laa li darahimir taxti min soxittin moom nee na moom loxoom bi moom rus na koo jël di ko tàllal kenn ku dul yàlla mi nga xam ne moom moo ko sàkk waaye jàppoon naa ne sax xaj na dañu koy préparé lu mu ndogoo boobu dafa àndaale koor wax naa la ko ci la ñu ndekke boobu ñoom itam dañ koo préparé néeg boo xam ne néeg bu xat néeg bu tar néeg boo xam ne misaal ko lu xaw a daw yaram la lu doy doy waar la néeg boobee nag ba ñu ko wooloo ba ñu ko indee ci néeg boobee lañ ko fas yéene jëmale euh, ginnaaw loolu bi nga xamee ne euh, indi nañu ko ci néeg boobu euh, sëriñ bi wax na ne ginnaaw néeg bi dañu ko defal lu mel ni ay escalier boo demee ci jësaaw sakur al atu fii mu nga cay misaal sax bay wax ne baytul muslim néeg la boo xam ne dañu ko dafa maanaam lépp loo xalaat rek ci lu mën a faagagal doomu aadama rek loolu mu ngi ca biir néeg boobee sëñ Touba néeg boobu dañ koo defal lu mel ni benn saaru escalier sëñ Touba nee ne ba muy jub ba muy jub néeg bi xataay gi ak tuutaay bi ci zaahir ak ak jëmmi sëriñ bi yoneen bi alayhi salaatu wasalaam moom moo ñëw taxaw ne ko Ahmadu taxawal ma jiitu la sëñ Touba taxaw foofu sax am na ci ñu nettali ne tubaab bi ñoom ñi ko doon dugal dañoo xalaat na moom dafa xaw a ragal ci biir ba tax na ñu jikki rek daal di mel ni kuy bof yi rek daal koy bamax bi ñu koy bëma bi muy dugg day xam nga day duggaale doole ak escalier yi ma la waxal nga xam ne day tànk bi day wàcc ndeke boobu fii sëriñ bi di teg tànku ndi joram bi mu nee bismillah du muy bi muy teg tànku ndi joram rek ndeke foofu bàyyeen def nañ fa rabb goo xam ne damay faral di wax ne rek rabb goo misaal la ci turu rabb waaye loolu moom xaj na luy faagaagal doomu aadama la mënuñu ko ñàkk a jàppalew tur ñu ne ñu tudde ko ak rabb waaye sëñ bi mu fa dugalee bi mu tegee ab tànkam rabb gi ko njëkk a jam daf tam bi mu jàmmee ci euh, bëtub ci ndëggul tànk li yegg si na ba ci bëtub oomo nga xam ne euh, lu métti lu tiis lu tar waaye teewul sëñ Tuubaa taraay ga ak xataay ga ak mettit wa nga xam ne li des ci ab tànkam nekk fi sëñ Tuubaa la mu njëkk a jëfandikoo mooy allahu akbar dafa kabar te julli ga mu fa julli nekkul julli goo xam ne julli ay ay waxtu la yu waxtu juróom yi waaye julleeg sant suñu borom subhanahu wa taala la muy ñaari rakkaa yu mu fa def sëñ bi mu jullee nee na bi mu nee allahu akbar mbooleem saari alquran yi téeméeri saar ak fukk ak ñeent yi nekk ci alquran dañoo daw jëkkante jëmam ji nee na suuratul baqara moo njëkk ci jëmam sëñ Tuubaa moom la njëkk a jëfandikoo ci ci ci ci premier rakkaa bi te boo xoolee suuratul baqara mu ngi toll ci ñaar téeméeri aaya euh, ak juróom-ñett fukk ak juróom ci yenn ci yen ci yenn riwaaye loolu saar wu toll noonu te it boo demee ci ulama yi dañu wax ne saar woowu moo gën a gudd ci saari alquran yi waaye teewul sëñ Tuubaa moom la jëfandikoo taxaw fi mu taxaw dal di koy jàng ci ay rakka bu njëkk bi ñaareelu rakka bi suratu Ali Imran dal di ñëw te Ali Imran d'accord nañu ne ginnaaw bu suratul baqara jàllee ci gën a gudd ci saar yi moom moo ci topp sëñ Tuubaa moom la jëfandikoo waat ci ñaareelu rakka bi waaye keroog sëñ tubaa julli googu da ko julli ci am xel ndax néeg bi xat na xataay goo xam ne sëñ tubaa amul fu mu reconwee amul fu mu wàcce bu su jot bi ci topp mooy bàyyil xel ne ak ràbbu mu ci biir ab tànkam te sëriñ bi ci waxtu woowu dafa dafa nekk ci koor yii yëpp sëñ tubaa da ko boole ci biir taraay googu xataay googu waaye sëriñ bi foofu mënta mënta mënta rokon ndax xataay gi waaye mënta sujoot waaye tar-tar yi nga xam ne sëñ tubaa mu ngi koy jànk wanteel ci ci biir néeg bi ci bi ci topp mooy néeg bi wax nañu ne itam bokkoon na ci muslim googu sañ Tuubaa di jëfandikoo mooy lëndamaay gi ak xataay gi dañ caa defoon mbooleem lépp loo xalaat na rek lu xeeñ la lu mën a fat doomu aadama la nga xam ne soo ko nokkee su duggee ci sens rek day dugg ci sa xëtër jaxasoo ak sa deret ji daal koy yàq ci sens rek day mel ni dafa am yenn façon tooke yoo xam ne day dugg ci sa yaram yi dox ci sens sa yaram yi sax mën na cee jaare daal di nëb wala mu daal di mel ni dañ ko duggal ci ab taal mu daal di eh, ñor ci sens yooyu yëpp sëñ Tuubaa dund ko waaye boole ci néeg bi dañ koo sofaase ci ci ci sofaas boo xam ne dafa tënk jër ba damay faral di misaal ne moo raw sax picc moo xam ne dañ ko dañ dafa tiim fu tàng foo xam ne bu naa ne day bu naawee rek day xalambaay daanu ci ci biir waaye loolu teewul sëriñ bi dund na ko fa ak ak ak rabu googu waaye teewul sëñ Tuubaa dafa sant suñu borom waaye mu jëfandikoo waat fa lu am am solo résistance boo xam ne bu pacifique la maanaam taxawut jéem a jëfandikoo baatinam ngir alak ay noonam te malgré que ne sëntubaal sëñ li mu dund lépp ndax loolu ku ko dund bu fekkente ni dëgg-dëgg doo ko mat kat suñ borom soxla ci ngir mën a nekk mu jaddid mën a yeesalaat da nga jëfandikoo baatin te bu boobaa da nga alak say noonu la nga bëggoon sa mission fa lay jaare waaye sëñ Tuubaa dafa def résistance bu pacifique mooy keroog wax nañu ne euh, Euh, jibril ñëw na fa ak mikaayil ak israfil ngir bëgg alak noon yi ci xeeti alkande ma aniraan yi noonu la ko sëñ Moussa Ka nettalee ñooñu dañoo bokk ci jundun mi ne malaayikatul kiraam mooy kuréeli suñu borom yi nga xam ne lu ñu nam lu ñu bëgg suñu borom defal leen ko waaye taxul sëñ Tuubaa jëfandikoo ko loolu muy wax ne moom maanaam euh, doy na sëkk muy jël ngànnaay loxo ndijooram doy na ko sëkk walees muy jël ngànnaay mbaa muy jëfandikoo lu mel ni jël ngànnaay ngir bëgg a jàkkaarloo ak am noonam kon bu ko neexoon keroog dana def loolu ndax sëñ Moussa Ka wax na ne bu doon wali wuy fayantoo kon mu alak leen ba seen xërëm ya gàntoo ndax kat yoroon na matuwaay yi te itam suñ borom doole loon na ko ci doole joo xam ne mën naa def loolu waaye néeg boobu la ca sëñ Tuubaa dund malgré que ne metti na tiis na ci jëmmi doomu aadama ju koy dégg mu nekkoon sa waajur wala mu nekkoon kenn ci sa famille da nga am looy looy yég danga am itam aw naqar ak aw tiis waaye teewul sëriñ bi loolu lépp da koo boole daal koy muñ ci biir néeg bi te xam ne moom kat moo waxoon ne eh, inni ujaddidu sunnatahul xaraar wa inni ahmadu man kat damay yeesalaat sunnaas nga xam ne dafa raaf te sunna si toll woon na foo xam ne maanaam mooy lislaam fi mu toll woon faw mu am ab rénovateur moo di ab mujaddid koo xam ne moom mooy moom mooy ñëw taxaw yeesalaat ko léegi nag foofu ci biir néeg boobu sëriñ bi nee na def na fa ay xeeti sant yàlla yoo xam ne ak ay tudd suñu borom yoo xam ne euh, mën nañu ne keroog fa la tàmbalee liggéey bi yëpp moo xam ci nattu yu tiis waaye moo xam itam sax ci ay xeeti cant yoo xam ne keroog suñu borom takkal na ko fa ay maqaamaat yoo xamante ni sëriñ bi nee na maqaama yooyu euh, kawe na képp koo xam ne kuy amuk dégg nga ci góor yàlla ci dégg nopp ndax nee na keroog néeg boobee suñu borom defal na ko fa la ñuy wax kasfu ba demee ci maqaamaatul euh, tasawuf yi mooy kasfu mooy suñu borom da lay wuññi ubbi la. ba nga mën a xam lépp gis lu baree bari nga xam ne sa diggante ak sa borom moom daanaka dootul am kumpa guy dox sa diggante ak moom loolu sëñ Tuubaa nee na keroog am naa ko fa ci ak dogg ak ak pas-pas ci ci tartar yooyu nga xam ne dund na ko fa waaye liñ ci liñ ci liñ ci indi mooy liñ ciy gën a dégg mooy keroog itam yonent bi salaam wax naa la ne jiitu na ko fa nee na def na fa ak yonent bi alayhi wasalaam yaari guddi loolu sëñ Moussa Ka di wax naan am na fa yaari guddi lekkul naanu lu dul ci leer yàlla kooka neenul ndax wax naa la ne le 19 la déparé woon suba teel la déparé ndar septembre 19 septembre ca ngoon ga lañ ko dugal ci néeg boobu mu fanaan fa bët set la 20 septembre mu fanaanaat ko fa ñaari guddi yoo xam ne sëñ tubaa tar-tar yooyu mu ngi koy dund ak rabu googu nekk ci biir tànkam bi sëñ di ko dund euh, ba ba ba ba ñaari guddi yooyu lekkut naanu lu dul ni ci leeru yàlla am na foo xam ne day wax ne euh, nekk na fa ak yeneen bi alayhi salaatu wasalaam nekkin wu mel ni ba yonent bi alayhi salaam génnee màkk jëm Madina di gàddaay na mu ànde woon ak abu Aboubacar Sadiq radiyallahu anhu te suñu borom doon leen anhuma doon wax naan euh, naa leen laa tax tahzan inna allaha maana doon wax Seydina Aboubacar ba mu jàqee naa leen bu leen bul tiit ndax yàlla kat suñu borom mu ngi ànd ak ñun. nee na nekkin moom nekk nag Seydina Aboubacar muy nekkin wu neex woo xam ne ñoom dem nañ ba defat ba mel ni ku fay dund loo xam ne lu neex la ndax mos gi ñu mos yàlla. nee na nekk naa ko fa ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam su koy misaal day mel ni kon maanaam xaaru sawri bi nga xam ne moo nekkoon diggante Makka ak Madina te mu laq woon fa ak Aboubacar Sëñ Tuubaa nee na loolee mën nañ koo misaali nii bi ci Kaajal Jóob fii nga xam ne foofu lañ ko foofu lañ ko defoon xaj na bu fekkee ni ba dem ngeen ba am foofu sax danañ won néeg ba fii ci Kaajal Jóob Sëñ Tuubaa nee na nekk na nekki nu mel noonu ak yoon bi alayhi salaatu wasalaam loolu waa Rawdu Rayaahin see téere bi ñu génne daaw rek bin nañu ko ci loole nag euh, liñ ci mën a jàngatee mu gën cee dolli ñu baree bari balaa ñuy continuer waat mooy maanaam euh, sëñ Touba ni mu résister euh, ci ci digg ay ay noonam ak nattu yi ak coono yiñ ko def ak ndakaaru gii li nga xam ne dund na ko fi waaye taxul mu am moyen nu mën a jëfandikoo ngànnaay waaye teew dana dégg lu tax mooy fexe fexe ba mën a xetliwaat xeetu yoon bi maanaam li nga xam ne bëgg na ko ci liggéey bi loolee am te mooy li nga laajoon ne sababu saahir si ak baatin bi mu waxoon ne sababu xaybatiya an allaha araada an anaala minhu jaha benn wa an akuna shafian li xaw mii ñaar wa an akuna xaadiman fi daw mi ñett yi nee na gañe naa ko ci tukki bi am naa ko ci te bokk na ci jaar gi fii ci ndakaaru mooy suñ borom euh, dana ko ci def muy koo xam ne dana yëkkati maqaamam yëkkati darajaam ba kenn dootu ko umpale damay wax ne nag sëñ Tuubaa moom fépp lañ ko xam fi mu amul fenn fu umpleeti kan mooy cheikhul xadim radiallahu anhu kon nee na suñu borom dana ci gën a yëkkatee samay maqaama beneen bi ci topp mooy waaye ma nekk itam ab chafia maanaam koo xam ne maay maay ramu xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ramu goo xam ne day sax dag te loolu itam lu wér la ndax tax na lii fi amoon nga xam ne notteel geeg yu bare bare sëñ Tuubaa deram bu ñuul boobu jëlee na ko fi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakato asalaamaaleykum mbokk taalibe yi ñu ngi fi tey ci kuréelu Mafatihoul Bichri Touba Buntu Port ñu ngi fi feggoog sunu jëwrin di alhaaji màgget Diop mi nga xam ne nii moo jiital kuréelu Mafatihoul Bichri mi ngi feggoog sëriñ Mahanta Amar mi nga xam ne nii mi ngi bokk ci kilifay daayira bi mu ngi feggoog sëriñ Fallou Thioub mi nga xam ne moom itam ci mbooloom daayira bi la bokk mi ngi feggoog sëriñ Fallou Diop mi nga xam ne nii moom ko ci kuréelu tuut tànk yi mu ngi feggoog ak sëriñ Cheikhouna Lo moom itam mi ngi feggoog tuut tànk yi fii muy barab boo xam ne nii barab bu yéeme la waaye damay bàyyi kàddu ko ak seen jëwrin moom mu tabal cee kàddu wax la mbir mi dëgg dëgg na la demee. waa Leral TV ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare bu baax euh, ci Pastef bi ngeen def di xañtu jaar sëriñ kon ñu ngi leen di sant suñu borom yaatal leen te dolli leen tawféex ñu ngi santaat yàlla bu baax ba nga fekkee waa kuréel gi ñu ko sëriñ Basiru parasante ñeneen ñi bari da ngeen ñu xaw a bett. mais mbooloo mi ëpp na fi kon ñu ngi ciy sant yàlla bu baax liñ ci mën a leeral rek lu tuuti loo xam ne dañ koy teg ci siraatal mustaqim ba nga xam ne ñun buñ fi nekkee ay taalibe yoo xam ne taalibe fu mu ne rek sëriñ bi da ko war a yitteel ah, mën nañ koo tàmbalee ci 1988 fii nga toog nii tey muy bunt bi nga jàkkaar lool muy Immaculée Conception fi la sëriñ bi génne woon bi muy dem 1995 bi muy dem ci tukki bi fii la suñ borom jaarale ko mu génn ambarke ci gaal gu ndaw booba daanaka lu bari dañ koo sëkk fii ci kanoot yu ndaw yi la génn deme ci kanoot gu mag gi dem ci gaal gu mag mu génn fii nga toog nii tey gis nga ko bi nga ñëwee da ngaa fekk sax mbooloo bi fi lañ defee si jaamu yàlla seen faratay borom yëpp julli yëpp fi lañ koy defee farati waxtu juróom yi fii lañ koy defee ci barab bii boobaak tey nag 1988 ak léegi maanaam dañ ci amoon ndigal fii nga toog nii ma faasul bisri boobu ngay dégg euh, ndigal li ñu ngi ko jële woon turut bi ñu ngi ko jëge woon ci Sëñ Abdou Lahat moo ñu tudde ma faatihul bisri kon loola ci ndigal lañ ko teg boobaak léegi defe naa ak tey ak ak tey vingt trente quatre ans nañ ko bii ñëw mooy trente cinquième année te bu bu bu mu ñëwee bu ne dañ koy teg ci ndigal ki fi neer Serigne ci lañ ko nekk doomi Serigne Touba bi sëñ laat jógee nag sëñ Abdou lañ dem ci moom yeeslu ci moom ndigal mu ne am ngeen am ngeen ci de man ngeen ko def bu baax a baax loolo kon taw feex la joo xam ne ci ndigal doomi Serigne Touba lañ ko jëlee Serigne Saliou yal na suñ borom dolli ko ngërëm moom it mu ne man de bég naa ci bokk naa nangul naa leen ko ànd naa ci maanaam di fi yónnee ay xéwal yu bari sëriñ cumbaleen ba ko daan yónnee kon loola ba tey taw tawféex mënu koo mag mu Mourtada góor yàlla mu jaay la mu jaaybal akbar moo ne moom de salaaw de moos loolu de lu mat di fàttaliku la moom it ñëw yendu feek ñun soxna may mun a seen jigéen ba ne moom la ngeen fay def ñun ngeen koy defal kon loola teg nañ ko ci ndigal la cay des nag mooy maanaam fii kenn ku ne xam ne ne bool un gii ci boppam fi la sëriñ bi embarqué dem fi la fi la delsiyaat fi la fi la wàcce yaat 11 novembre 1902 nag fi la wàcce maanaam 11 novembre 11 novembre 11 novembre boobu maanaam ñun ci lañ koy célébrer teg ko ci siraatul mustaqim ñëpp wax nañ ne keroog bi sëriñ bi wàccee waa waa wàccee fii ci wax bi maanaam euh, suñu borom def na fi mbégte moo xam ne si maanaam dañ ne euh, maanaam Sénégal bëgg na moo xam ne jooy na France maam Cheikh moom la maam Cheikh ki sa Moussa wax. kon loolu maam daal ne daal ne toog ab diir ne woo ma woo leen ma kii Cheikh woo leen Anta xam nga maam moom it am na ci tawfeex ju rëy maanaam ab diir rek ñu ñu ñu dukki dukki woo maam Cheikh mu dem fekk ci gaal gi. ni surtout ñu génn ak moom mu ne ko Cheikh Anta maanaam. Euh, moo dem fu ma jaaroon maanaam saalituma fa waat naa wàcc naa wàccaale de mboolem ku ma yaakaar kon loola taw féex mënu koo mag ñun suñu borom dimbaliñ te nag loolu ma ne ko waxe tënkale la ko doomi Serigne Touba yëpp maanaam ñu suñu borom dimbaliñu maanaam ñu am ci seen digal ba mu ñëw ci sët yi sëñ Mouhamadou Lamine Baara ñëw moo ne na ngeen ko wéel sëñ Seydou Muxtaar ne sàllaw de moos moom it naan ne moom lu mat da fonk la Cheikh Mountakha ne man fas naa ko yéen a ànd ak yéen mënu koo mag kon loolu taarix la joo xam ne maanaam lenn la ci barab bii nga nekk nii tey ñu def ko nag barabu jaamu yàlla lépp luy ndigalu sëriñ bi maanaam lu sëriñ tubaa santaane ci maanaam ci kaw suuf ci jàng alxuraan jàng xasida maanaam ak jaamu yàlla fii lañ koy defee kon loola moom ñu ngi leen koy seeral leen xam ne barab bi moom ci ndigal rek la ñuy wéy leer na nañ ndax barab la boo xam ne nii barabu jaamu yàlla la loolee mu waxit keroog it ba nga xamee ni fi la ñu embarqué sëriñ bi fii nga taxaw tey ndox la woon wax nañu ne ci taarix ci gaal gu ndaw gi lañ ko dugal mu dem ci gaal gu mag tukki bi mu ñibbiseet fii la wàcc ci mool ci la ci la ci la waxam jooju jëwriñ di wax léegi ci la sëñ Moussa waxoon ne keroog ba am ne jëlañ ca waxam Moussa Siri mu ne gàññe ke marañ Cheikh Ibrahima bëgg la fi mbëgg moo xam ne jooyloo na France kon fii muy mool 1 daal taarix la boo xam ne nii ci wàllu sëriñ bi taarix bu leer nañ la bu wér boo xam ne nii daal mën na cee génn ay xibaar yu bëree bëri waaye xaaral ma jox suñu jëwriñ maa antaman mu sànn ci ay kàddu barke borom Touba jërëjëfe borom Touba jaajëfati borom Touba waaw maanaam Cheikh Bassirou noonu nga ko waxee ak ni ko jëriñ waxee rek matale na lépp daanaka ndax maanaam la maam Moussa ne woon bul woon kon ak demam gi wolof nasaraanu te kon it billaahi ñëpp dem niiraanu ndokk ba sëriñ bi demee andi ñu sëriñ bu réy bi di ñëw rek si ay kàddu yu ndaw ci lu ñeel taarixu port ak sëriñ bi daanaka mag ñi fi jiitu ci kàddu gi wax nañ lépp li ñu ci war a wax xanaa luñ ci yokk rek dañ ko ci yokk ndax inna xusnal fi'li fi akmalihi moo tax dañuy sof ci kàddu yu ñu déggagun mu ratandi fi seexul xadim radiallahu taala anhu booy wax jaar-jaaram mënoo cee génne poor ndax fi nga xamante ne si ni fii la déparé bi muy dem ci ci exil bi waaye traitul exil bi fi la wàccaat kon loolu taarix mënoo ko wax di ci génne port ci jaar-jaari sëñ bi ginnaaw li ñu fi dégg si kàddu ñu wax ko mu mel ni taarix bind na ni xëy na am na aspect boobu boo koy xool da ngay xool sax ci saahir la ak ci baatin muy bi nga xamante ni ni tubaab yi ñu ngi gis ak feeñam ci jamono muy ñëw fekkoon fi ay muluk ay buur ju ko jiitu woon te ñu am fuñ jaaroon ak ñoom muy ci wàllu zahir nañ defoon ak ñoom bi sëñ bi ñëw ci feeñ tàmbali lu mel noonu loolu lañ def wala kon bëggoon a def ak moom ginnaaw bi nga xamante ni si ni ñenn ci ñooñi sëñ bi ñu ko jege wala sax ñu bokk ak moom réew mi jaar nañ digganteem ak tubaab bi woo tax lu mel noonu manaam muy aspect zahir bi waaye dëgg-dëgg dem gi baatin da koo lal ndax moom moo ne sababu xaybati ya an allah arada an anaala minhu jaaha waan akuna shafian li xaw mi waan akuna xadiman fi daw mi kon moom jamono bi ñu jàpp ni dañ koy génne ngir mu tumuranke wala mu am yeneen melokaan ci moom ma ngay xamee ni foofu la yëfam di war a baaxee moom Cheikhul Khadim loola nag départ ga fii la exil ba it fii la. bi bi mu jógee fii ni ko maanaam sëñ Bass bi maam Cheikh Rafal keroog ba mu bëggee Cheikh Rafal dafa nekkoon intellectuel maanaam tey fu sëriñ bi masaan ñi jublu rek daanaka dana fa fexe ba am fa kër titre foncier maanaam boo dee gis say tey Lambinaas booy déggee Lambinaas diggante pale de la république bii ngay gis jëm noonu foofu tool maam Cheikh Rafal la woon. nga xam ne maam Cheikh Rafal bi mu bootee sëriñ bi foofa la ko yóbbu maanaam bëggul sëriñ bi tumuranke ci dara kon loolu foofa la ko daal di yóbbu maanaam maanaam pour pour te taw ko fa teral ko fa bi mu fi jógee nag jaar na fu bari parce que dafa jaaraat fi mu jaaroon daanaka la jaaraatoon bi mu fi jógee dafa jaaraat ay ndar dellu yaat da yaa ngi dégg mu jaaraat Sanosi jaar Màkka Sam Babu jaar jaar dëkk yu bari daal maanaam maanaam Sanosi moom juróomi fan koor ga lafa dem ba woor fa ba wori fa maanaam loolu lépp ci ba mu retour exil bi ginnaaw bi nag boo gisee maam maam si Anta maanaam euh, mu yeex nga na léegi maanaam ca ginnaaw ba daanaka doon du weer wu manqué tuuti la ci la ci la àgg Darou Salaam nag pour mu defal ko ngan gi loolu lépp sëriñ bi dem na ko. kon lu mel ne tarax yi dafa bari parce que même wax nañ fii BCEAO bi sëriñ bi julli na fi BCEAO euh, centrale bi ngay gis sëriñ bi julli na fi kon yooyu yëpp sëriñ bi moom fu mu tax teg tànkam rek ngëneel lay doon.